jërëjëf Anna Thiaw gan gi Boubacar Seye la ni nga ko waxee njiital tabaxaat Sénégal ak waa diaspora jiite it euh, Horizon Sans Frontières euh, Boubacar ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. Fatou Thiam ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu auditeurs yëpp. Mhm. jërëjëf alor yow euh, nga daal di fësal sa euh, yéene bokk ci élection législative yi ñu mal ànd ci ak kuréel gi nga taba euh, taxawal yàggul dara muy tabaxaat Sénégal lan moo waral nga jël dogalu soobu ci politique rawatina ak bëgg dem ci assemblée nationale. waaw xam nga Fatou ginnaaw bi ñu passé ay années di yeete di sensibiliser sur. des questions transversales euh, géopolitique comme la migration bi nga xam ni tey euh, dafay dévoiler yeneen problématique de dignité humaine euh, gannaaw bi ñu passé ay années aussi di di yee suñu mbokk sénégalais yi si seen wareef ak ni ñu war a taxawee ci pays yi ñu nekk ak ni ñu war a toogee euh, tey dañu jàpp ni dafa jot Euh, ñu commencé beneen phase de ce combat bi nga xam ni euh, dañ ko réserver exclusivement ci euh, taxaw suñu mbokk yi nekk bitim réew loolu moo tax ñun ñu ne élection yi législative yi ñu dëgmal au mois de juillet daf ñuy permettre tey am yéene dugg ci dafa nekk occasion pour ñun Euh, yéen a dugg ci pour mën a servir cette cause là euh, dafa jot nag euh, dëkk bu mel ni Sénégal diaspora bi nga xam ni dama wax ni tey dafa nekk un mayon très important de l'économie du Sénégal ñu représenter ko de façon plus digne de façon plus efficace dafa jot aussi que. Euh, question yi nga xam ni yëpp ñu ngi koy posé ak problématique yi am yëpp tey dans la diaspora euh, ñu ñu ñu jël ci en compte au sein de l'Assemblée nationale euh, par des propositions wala ay projet de loi kon kon loolu moo tax euh, loolu moo tax euh, ñu ñu ñu am yaakaar ni xëy na su yàlla mottale yéene bi mm. yiñ doon proposé yëpp tey dinañu am possibilité Euh, de façon plus concrète euh, mu nekk ay propositions au sein de l'Assemblée. Mm. ci noonu aussi la ñu xalaatee euh, nii tey dafa jot tey ak fi réew mi toll mm. ñu tabaxaat parce que problème yi bëri na Sénégal entre autres mën nañu tudd l'injustice sociale bi nga xam ni tey moo ñu menacé tous la sécurité l'insécurité judiciaire bi fi am. Mm. Euh, les crises multiformes yi fi am crise yëpp secteur yëpp dafa am crise euh, euh, njàng mi doxul napp gi doxul mbay mi doxul faju bi doxul nit ñi sonn nañu tey jii loolu yëpp tey jikko yi tamit gis nga jikko yi soppeeku na mm-hmm. ñu xalaat ni tey war nañu jouer not partition loolu moo tax ñu taxawal mbootaay mi ñu tuddee Euh, tabaxaat Sénégal ak waa diaspora bi. Mhm. Euh, l'exclusivité mooy tout simplement diaspora bi nga xam ni tey euh, kenn musu leen boole ci dara. ñu nekk doomu réew mi lépp lu ñu mus a am lu fanaan ci Sénégal donc ñun loolu moo tax ñu ne tey doomu réew mee war a tabax réew mi te tey mënuñoo tabax réew mi dind ci loxo ñi nga xam ni tey ñooy diaspora te man ma bokk ñi gëm ci ñi mën a génnee Sénégal ci situation bi la ñu nekk. Mhm. Euh, may rappeler aussi. Mhm. tabaxaat Sénégal. Mhm. Euh, euh, se positionne dans l'opposition pour mu am benn ambiguïté. loolu moo tax tey ñu invité tout le peuple sénégal. à la diaspora à la reconstruction de notre pays. tënk ko ci expertise parce que looloo yoreem réew. tënk ko ci justice sociale. tënk ko ci ragal yàlla ak gëm yàlla gis nga dëkk bi yëpp ay scandale la jël nañu xaalis bi lekk nañu xaalis bi alors ku gëm yàlla ragal yàlla du doon lekk xaalisu askan li ñëpp benn nit mënu ko utiliser. Mhm. alors parti bi waa diaspora ñoo si bokk. wala ñëpp a ngi ci biir non waaw mais Sénégal la ñu wax ñu tabax ñëpp a ngi ci ah, wax Sénégal tabaxaat Sénégal ànd mhm. tabaxaat Sénégal ak waa diaspora. donc nous avons dañuy bëggoon mettre en exergue le mot tabaxaat. donc euh, c'est le c'est l'élément nouveau. Mhm. Euh, dans la dans dans dans la reconstruction démocratique de notre pays donc tabaxaat parce que aujourd'hui il faut reconstruire gis nga jikko yooyu yëpp loolu moo tax nag tey euh, ñun il faut que ñu xoolaat comment euh, euh, euh, valeurs yooyu nga xam tey yi ma site nii yëpp nga xam ni c'est des valeurs qui manquent cruellement à la gestion de notre pays ñu fexe ba dugalaat ko ci loxo yu set loxo loxo des mains experts comme ni mu ko waxee léegi ñun ñëpp ñu ànd tabax suñu réew. alors loolu moo motivé tey. Euh, sama candidature à l'Assemblée nationale. nationale. pour ñu mën a sur ces questions là indi des propositions. ndax yaakaaroon ni euh, lii dana may euh, gaa yi lu nu wax ndax xam nga ni ba ngay yëngu ci wàllum xeexal ñenn ca bitim réew ak yu ni mel ñii fi toog tey ci nguur gi dañ la doon joxoñ baaraam tuuma ni xëy na palaas nu toog moom nga teg gët wala politique a tax nga yëngu yaakaaroon ni tey lii dana leen jox dëgg ci sa kaw. ab doom sénégalais la mm. je crois que dama amul lu ma war a làqatoog lu may dëpp mm. parce que j'ai le courage de mes convictions gisoo nit ñi sax bi ma ko lancé dañ ma ni yeex nga koo def mm. ñan ñoo la mais mais mais ñëpp gisoo bu ñu wootee ñëpp ñëw gisoo bu ñu nee côté ñëpp ñëw gisoo bi ma déclaré sama candidature toute la presse a relayé ça j'en profite pour vous remercier pour le soutien bi ma wootee keroog aussi cérémonie dafa fees del nit ñi dañ ma ni yeex nga koo def ma leen lu jot rek yomb ba pare aussi dëkk bi fi mu toll quand même euh, nous avons donc ñun war nañoo man jàpp naa ni war naa mën a par rapport à la reconstruction de notre pays. Mhm. tey war naa mën am des propositions. ñëpp ci a daal. Mhm. ñëpp ci war a jàpp. alors assemblée waaw assemblée ga nga bëgg a dem. Euh, parrainage bi dañ koy def ci élection législative ñu dëgmal loolee yaakaaroon ni mu mën a doon xëy na lu leen di gàllankoor. waaw loolu kay loolu kay njàqare gisoo boo commen boo xoolee ñëpp ngi koy rejeté euh, tey fii ci biir Sénégal te suñu daful nank sax dina fi indi ay coow gis nga les élections euh, locales yi passé coow li mu fi indi woon donc euh, rejeté nañ liste diw rejeté nañ liste lii donc nguur gi di def lu ko neex donc si scénario boobu la ñu jëm parce que bii les enjeux de ces élections là dafa dafa rëy parce que ñoom suñu perdre la majorité ils sont obligés de cohabiter loolu yëpp du leen neex ba pare aussi il y ambitions de troisième mandat pour woon dëkk bi nit ñi ñu ngeen man ba léegi donc ñoom dañ ci da leen di jaral lu nekk mais nit ñi aussi na leen jaral lu nekk parce que tey euh, li ñu mënul accepter euh, euh, benn modèle démocratie exclusivement réservé ñi am xaalis ak ñi am doole hmm. alors que tey ñëpp jàpp nañ ne assemblée nationale bi ñu gis fii Sénégal bu assemblée nationale boo xam ni dafay ça fait honneur au Sénégal yi si xew tey dama jàpp ni assemblée nationale soxla na une représentation euh, citoyenne jàpp ni assemblée nationale soxla na aussi une légitimité populaire ba soxla na aussi euh, une expertise donc tey ñoo ñëpp soo leen fi bëggee dindi parce que parce que da ngaa jël euh, euh, da nga bëgg a def un système de filtrage antidémocratique ba nga xam ni tey Euh, képp ku amul xaalis éliminer nañ la parce que ñoom ñoo yore réew ñoom ñoo am xaalis lu leen neex la ñuy def déjà commencé na loolu je crois que c'est inacceptable d'autant plus que même euh, CEDEAO bi nga xam ni foofu la Sénégal bokk mm. euh, nee na leen mesure boobu jël leen ko ngeen teg ci suuf mais tey li xew moom mooy Sénégal tout simplement day topp CEDEAO bu ko neexee donc ci bu ko arrangé gis nga bi bi problème malien bi taxawee dafa jog ànd ak CEDEAO signé ci ñi nga xam ne tey ñooy appliquer les sanctions mm-hmm. alors CEDEAO ni ko teggil tànk mu bañ donc loolu loolu moo tax tey ñun ñu jàpp au niveau de tabaxaat Sénégal ak waa diaspora bi mm-hmm. euh, euh, mesure boobu euh, dañ ko war a teg ci suuf di aussi toute l'opposition ñu dox bloc parce que parrainage bi mënul jàll warul jàll aussi. Mhm. léegi nag nit ñi ñoo jóg ensemble pour dire non. pour que ñu teg ko ci suuf. Mhm. boo jàllee ci parrainage bi euh, naka nga nar a demee ci élection yi da nga cay am ñooy àndal wala yéenay dem waa. tabaxaat Sénégal rek. waaw xam nga actuellement ñu ngi ci phase bi ñu nekk tey mooy phase yu yëgle. donc mhm. ñu ngi sensibiliser ñu ngi massifier. ngeen seet seegu leen. ñu ngi wax si si am na ñu ñu seet. am na am na ñu ñu pour le moment. Euh, comme amul dara loo xam ne tënk nañ ko ci këy alors euh, euh, dañuy xaar rek ba lépp sotti. Hmm. mais ñun dañuy jàpp ñun déjà commencé nañu suñu liggéey. au niveau de de de tabaxaat Sénégal il y a beaucoup de gens beaucoup de yoo xam ni woo nañ ñu bëgg a gisee ñun actuellement euh, bi ñu ko tënkee ba léegi rek il y a plus de soixante dix personnes fii ci Sénégal yoo xam ni ñu ngi liggéey matin soir ñu ngi réunir tous les jours nelawatuñu pour yaatal. Hmm. donc suñuy yéene daal mooy dem ci. maintenant aussi nañu leen a séentu mën nañ ñoo sentu foo euh, mais bien sûr parce que Yewwi e dans la mou ñun ñoo bokk li ñu dox defaraat Sénégal mais ànd bi ñuy ànd ak nit ñi day nekk àndu nangulante àndu nawle parce que ñun dafuñu politique politicienne dama wax ni euh, dugguñu pour xuloo pour xeex pour saaga mais une force de de de de de de proposition sur les questions du moment parce que tey y a des enjeux géopolitiques géoéconomiques et géostratégiques ci loolu képp koo xam ne mën ci ànd àndu dëgg àndu nawle euh, àndu nangulante Euh, alors loolu du euh, duñu ko bañ les portes sont ouvertes. gaa yëpp Boubacar euh, li ngay wax la ñuy wax gaa yi bu ñuy door li ngay wax la ñuy wax de yow loo mën a teg ci loxol sénégalais yi luy wane ne xëy na. je ne cherche pas à convaincre. xam nga ah, ah. man ñëwuma je je parle mm-hmm. que ku la gëm baax na ku la gëmul baax na. non je ne cherche pas à convaincre man sénégalais laa li ma gëm laa 2013 laa fi ñëw. Mm-hmm. boo xoolee sur la thématique là lu xew ñu ñëw ci man parce que la ma fi waxoon. Mm. la ma waxoon daaw la wax ren. dëgg la donc man waruma c'est-à-dire que diguma kenn dara mais hmm. am naa wax sama gëm-gëm et je suis dans cette dynamique là xam nga hmm. li ma gëm laay wax sama yéene wax naa ko lama ma ci Sénégal aussi wax naa ko hmm. maintenant c'est aussi simple que ça lépp loo xam ni nag euh, euh, euh, dëgg la lépp loo xam ni jub la ñun ñu ngi ci lépp lu jub jul maaye bëgguñu ko et ça c'est clair parce que nit ñi xamee wuñu la nen c'est pas un discours politique mais c'est ma conviction personnelle lii moom ma fi indi lii laay dox depuis depuis depuis depuis 2013 bi ma fi ñëwee ba léegi benn virgule du ci jóge te ñamay àndal xam nañu loolu. Mhm. ñun ci noonu la ñu bëgg a doxee. leer na Boubacar ñeenti simili moo ñu dese ñu tënk ko ci sénégalais yi nekk bitim réew ana tey loo xam ca ñoom rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi fitna am bokk na ca Ukraine gee nga xam ne euh, xëy na guerre ba ba léegi pënd ba wureegul loo xam ca yooyee sénégalais. waaw amee xam nga tey euh, li ñëwaat tey rek looloo indi tabaxaat looloo indi euh, sama sama sama sama sama yéene ci dugg assemblée. Hmm. mooy taxawaay bi nga xam ni war nañ ko taxawu doomu sénégalais yi nekk bitim réew. tey ñaata nit la caabi féete ginnaaw. Hmm. tey ñaata nit ñoo pet seen bakken ci anam yoo xam ni dara leeru gi ci léegi gis nga li xew Ukraine. Euh, ñaata ba léegi sur ce dossier yaa y a de flou parce que tey bi mu commencé sax boo seetloo. Euh, dama ni woon dama joxe woon ay conseils sénégalais yi fa nekk parce que xamoon naa ni hmm. euh, assistance bi ci war du ci am mani leen euh, na ñu invité tassaro na ñu éviter les mouvements de foule dem la Pologne hmm. parce que Pologne pays Visegrad la hmm. Pologne mënul accepter dañ ko musa a bañ l'accueil des réfugiés kon tey su li amee ay doomu sénégalais yi fa dem le traitement mënul nekk benn donc loolu loolu bi mu amee mani tey Euh, li ciy génne doom nit ñi ñuul yi fa nekk euh, euh, les pays africains dans une démarche communautaire mm. dañoo waroon fexe ba regrouper seen i doom les sécuriser pour les rapatrier ku nekk dans dëkk bi nga jógee mm. mais pour cela nag dëkk bu mel ni Sénégal dafa am un rôle essentiel bu mu si mën a parce que moom moo assurer la présence de l'union l'union l'union l'union africaine kon Sénégal waroon na jóg euh, sur le plan international xeex ba nga xam ne dinañ ubbi un corridor humanitaire sécurisé pour mën a taxaw noonu. Hmm. mais loolu amul. Euh, da ngay gis ku nekk c'était le le sauve qui peut. bi ñu ñëwee ba egg dans la frontière gis ñu fa kenn am na yeneen dëkk yoo xam ne dañu teg ay tentes di xaar seen nit. am na sénégalais bu ma yónnee ay ay audio yoo xam ni dox nañu plus de douze heures de temps kenn ci nee na ma toog na ñetti ñetti fan lekkul te dafa amul biir bu metti ñii daw Allemagne ñii daw France ñii daw ci yeneen dëkk yi maintenant beneen problème bi ci nar a am mooy effectivement l'Ukraine euh, euh, est en guerre mais c'est pas le Sénégal donc ñooñu bi ñu demee ñu ngi commencé di laaj asile dans ces pays-là mais alors que c'est pas le Sénégal qui en guerre mm-hmm. donc ces migrants ils sont toujours considérés comme des migrants économiques ils ne sont pas prévus par la convention Genève de 1951 mm. aussi dina indiwaat yeneen jafe-jafe mm. seen nekkin ci dëkk yooyu lii dellu si waat mooy toujours la prise en charge l'accompagnement l'assistance de ces Sénégalais de l'extérieur suñu amee ay tolof tolof mm. tey wax naa ni ñaata sénégalais la ñu rey est-ce que mus nga dégg tey ñu diligenter une enquête parlementaire est-ce que mën nga dégg taxawal kat ñu saytu mus nga gis benn yoon état ni wala je vais me constituer partie civile pour taxawu ne serait-ce que famille yi nga xam ni tey dañu nekk ay difficulté yooyu yëpp musul am loolu yëpp tax moo tax ñu ne tabaxaat hmm. loolu yooyu yëpp moo tax tey ñu wootee euh, pour la reconstruction de ce pays là hmm. bi nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk hmm. te nag euh, suñu waxante dëgg rek euh, le Sénégal bi ñu xamoon bokkal Sénégal bi ñu gis tey tey nous nous avons un pays balafré nous avons une démocratie balafré tey jii euh, euh, euh, gis nga complot yi da ngay xool nit ak neexu la duñ ko viol wala jëm ko éliminer yooyu yëpp injustice boobu la bëgg xeex. Mhm. pour que tey demain Sénégal bi am bu subaa. alors ku xiif ku xiif lekk. mbiram mbiram mbayang mbiram mbayang yaa ngi koy junj sànq xamu leen kon fi mu ne ci lu mu ne moom mbayang ji. mais mais mbayang y' a un flou total gis nga à un moment donné nous avions demandé à ce que mu am. Euh, comment on appelle preuve de vie mais mujjul fenn mu leen rey. kon fi ne euh, xamu leen ndax mi ngi dund wala dundatut. non mais preuve de vie la ñu laajte mais mais mais doo ci dégg den du ñu l'état ne communique pas soo waxee ñu naan la dañuy xaar euh, famille bi ñu naan di xale yu juddu pour baal mbay ou pas est-ce que mm. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous pensez que c'est sérieux tey le Sénégal bu relation yu am ak Arabie Saoudite waroon na diligenter tey une diplomatie pluriacteur une diplomatie non étatique ñu dem ñaan parce que li ñu seq ak Arabie vraiment war na ñoo mën a baal mbay mais loolu amul soo leen waxee duñ ko def ñu naan la wala euh, di wax lu leen neex alors que c'est un dossier très sensible. jërëjëf euh, bu baax a baax li ñu war wax bari waaye du ñàkk yeneen jotaay incha ñu mën a jukki loola yépp ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM. jërëjëf Fatou.